ay teew yaatu ci fiqhu tax am nañu ko fonk lool di ko jàng sax ba ko mokkal def ko rek ab la tàmbalee yaquulu dana wax abdul waahidi jaamub kenn ka ibnu haashirin te mooy ibnu haashir mubtadian mbir mu muy aji tàmbalee bismillaahi ci tudd buur bi alqaadiri bi aji atan maanaam sëriñ bi taalif dafa njëkk xamle boppam ni moom de ibnu xaachir lañ ko miine mu ne ne mi ngi taalif tey tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne moo man lépp sañ lépp kon tàmbali bi moo di alhamdu xeeti cant yépp lillahi aji yey la ñeel yàlla maanaam yàllaa yàlla mi nga xam ne allamanaa xamal nanu mi ne loxo loomi ci ay xam-xam maa la nga xam ne kal kallafanaa togg nanu jëfe maanaam waral na ci moom jëfe bi ci moom bi ca loole ñu mi ngi sant yàlla mi nga xam ne li mu gàll ci suñuy loos ci war koo jëfe muy ay wari gar xamal na nu ko ba nu xam ko te loolu xéewal la sa kilifa li mu la sant gàll ko ci saw loos mu xamal la ko ba nga xam ko loola xéewal la gu rëy rëy moo tax mu ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu defal loolu salla yal na dolli tedd nga wa sallama te mu dolli woolu ala muhammadin ci muhammad wa alihi ak ñooñam wa sahbi ak ay saxaabaam wal muqtadi ak ajroy muhammad gannaaw sant yàlla mu teg ci julli ci yonante bi ak bi muhammad mbokkam ya ko gëmoon ak saxaabaam ya ak képp ku jéem a roy ci ñoom bu bis penc wa baadu gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonante bi falaawunu ndimbalkat mooy la sàkku minallahi tukkee ci yàlla almajidi ka eji tedd fii nazmi abiyaatin ci way ay bayit tufiidu yooyu e danañu jariñ lil ummi yi ñal ko jug ndey ummi yi ko jug ndey mooy man laa fu alxiraata wala alkitaabata maanaam ku mel na ko ndeyam jure woon rek nga xam ne mënta jàng mënta bind kooku li ma ñax ummi yu ne damay ñaan yàlla dimbali ma ba taalif ab téere boo xam ne ay way lay doon du ko tax a rëy sax waaye dana amal njariñ koo xam ne taxulaa yeewu ci mbirum diine mel ne na la sa ndey jure woon rek fi xaqdil ashari ci tawxiitub al ashari wa fiqhi malikin ak fiqhi malik wa fi tariqatil junaydi ak ci yoonu junaydi as saaliki ga aju soobu ne dama ko bëgg a def ñetti xaaj ñetti xaaj yooyu mooy xaaji diine benn xaaj bi day jàngale tawxiid tombeeg al imaan mu ne moom dama cay topp al imaamul ashari aw yoonam lay topp ci fànnuk tawxiid gi su ko defee ma teg ca fiq fiq mooy jàngale shariha daldi di tombeeg al islam moom ne dama ci topp fiqu malik maanaam alimaam malik lay topp ci wàllu fiq bi bu ko ñetteel nag mooy at tasawufu te mu tombeeg al ihsaan moom ne dama ci topp al imaamu al junayd al junayd nag ku siiw la ci tasawuf ba nee nañu sax bu fekkee tasawuf dem na ba amul wu mu ñu rëdd naa nii la nii gannaaw yàlla ci moom la dale mu tàmbali nag ne muqaddimatun li aji jiitu la mën na it muqaddamatun li lu ñu jiital la li kitaabil i'tiqaadi ñeel téereb pasteef ba mooy natun bi aji dimbalee bi aji dimbali li xaari ihaa ñeel aji jàngam xaalal muraadi ca nameel ga nee na li may njëkk a indi mooy téereb tawxiid bi maanaam xaaj bi féetewoo mbirum gëm yàlla ak lu aju ci gëm ci lislaam boobu xaaj moom laay njëkki waaye laata ma koy indi nag dama ciy indi ab muqaddamatu muqaddamatu mooy ab tàmbali boo xam ne soo déggee nañ la ca waxee dana la dimbali bu baax ba boo duggee ci lañ bëgg a wax dëgg-dëgg mën koo xam bu baax moo tax mu ne lii ab tàmbalikaay la boo xam ne dañ koo tàmbalee téere tawxiid bi te yow miy jàng boo ko xamee dana la dimbali ba nga dégg bu baax a baax téere tawxiid ba mu tàmbalee ci waxu ko mun a sunu atte alxaq lii bay ko jox xel qadiyatun ab atte lay doon laa waqfin ci lu dul taxaw xalaa aadatin ci aada aw wadaxin wala ak tër jëlaagoo feeñ na waaw nee na atte xel dafa am atteb aada am atteb tër am atteb aada moom mooy loo xam ne moom lañ yàgg a gis ci aada muy am ak amaat ba leneen lu am day bette leneen lu amaat nekk xotti baax koy xotti aada atte bu tëral nag mën naa doon loo xam ne yàllaa ko tëral muy atte buñ tëral mën naa doon atte boo xam ne mbindeef yi ci kaw suuf ñoo ko tëral wala kenn ci nee na yooyu taxu mooy wax atteb xel laay wax atteb xel nag mooy loo xam ne xel mu sell mi ci boppam moo koy seet rek ba atte ko maanaam benn mu saxal ko mbaam mu dàq ko ndax atte moom boo ko déggee mooy saxalal mbir mbir wala dàq mbir walis mbir isbaatu amrin li wala nafyu amrin xan loolu mooy alxukuma waaw saxalal mbir wala dàq mbir walis mbir loolu mooy atte loolu nag bu ko xel dee def moom xel mee koy cher rek nga saxal loolu mbaa mu dàq ko li tax loolu ma tax xam nag mooy boo duggee ci melo yi ñu wax ci wàllu suñu borom noonu lay demee day am melo yoo xam ne boo ko dee seet xel da koy saxal ci suñu borom du mën a ñàkk am xel am melo yoo xam da koy dàq ci suñu borom ni mënta am ndax ak manqué la am loo xam da ko ciy nangu mu sax nangu itam mu dàq loolu danga ko gis ci biir moo tax mu ne aqsaamu muqtadaahu xaaji la mu sàkku moom xel bil ci ak takk tumaasu def na leen ràññee ràññee mooy jeqee ci wolof yu gën yàgg dafa wax ne àttib xel nag bi ñu lay wax ni na ko takk ne weesu ñetti xaaj yi mu lay wax wax ñoom xaaj yooyu al wujubu moo di ak war al istihaalatu akuk jomb al jawaasu akuk dagan alwujubu da ciy jublu loo xam ne ak amam mënta ñàkk al istihaala mu jublu ci loo xam ne ak amam dafa jomb aljawaas mu jublu ci loo xam ne ak amam mën naa am mën naa ñàkk moom lay bëgg a firi sax ne fa waajibun waajib laa yaqbalu du nangu ak nafiya dàq ga bi xaalin ci menn mbir waajib mooy loo xam ne bu ko xel mu sell mi xalaatee lu mu ko wëlbati wëlbati day wax ni lii moom mënta ñàkk am dong la mën a def ni ki amu yàlla amul yàlla lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne yàlla moom am dong la mën a def wama loo xam ne abaa bañ na asuboote sax xaq lañ ci am xel al muxaalu mooy lañ jombal maa loo xam lu ko xel mu sell mi wëlbati wëlbati ne loolu moom mënta am dafa jomb nit ñàkku yàlla waaw loolu moom moo tudd lu jomb wasim na nga màndargaale maa la nga xam ne xabila nangu na al amari ni yaari mbir ya jaayisan aji dagan maa li nga xam ne bu ko xel mu sell mi xalaatee ci wet ne waaw mën naa am bu ko xalaatee ci wet ne mën naa ñàkk itam xam ne xel mi nangu na ak amam aku ñàkkam niki doomi aadama ji faatu tey jii ak aku ñàkk faatoom tey jii ak mboolem yu bare bari ci nga xam xam ne xel nangu na am xel nangu na ñàkkam loolu moo tudd jaayis kullun képp ci yooyu nag xusi ma séddaleef na ko li daroor yi jëm ci daroor yi maanaam lu jarutu settantal mooy daroor yi mën nga koo firee ko jug peñu peñu mooy leer wan nadari ak ko jug setantal maanaam ñett loo xam ne kenn ku ci nekk nag mën naa doon loo xam da nga koy xam fa saasa te du jar nga di ko setantal waaw mën naa doon loo xam ne faaw itam nga setantal ko njëkk nga setantal ko njëkk door koo xam suñ band yu njëkk yi sax joxe woon nañ ci ci xaaj yooyu kenn ku nekk ñu leeral bu dee waajiba bu dee mustaxila bu dee jaayis leen lu ci nekk nu wax misaalum ba mu doonee lu fës lool ba jërul setantal ak ba mu xawee làqu ba jar setantal waaye nag bi bànd moom defe naa dañuy doy loolu lim ci wax rek te far jàll tay ko kon mu njëkkee aw walu waajibin aji jëkki waru gar ka nga xam ne kulli fa toggeef na ko jëf ku ñu togg jëf mooy al mukallaf rek ki nga xam ne yàlla digal na ko tere ko ah, mu makkanan mbir mu muy ku ñu jàppandal min nazarin ci seet seet wala nga ne seetantal ay yaarifa moo di mu xam allah yàlla wa la ak yonante bis sifaati ca melo ya mim maa ci la nga xam ne nasaba samp na moom yàlla al ayaati màndarga ya wala nga ne tegtal ya alayhi ca moom nee na mu kàllaf moom lu njëkk a gàllu ci loosam mooy la ko njëkk war mu war caa farlu mooy fexe ba xam na muy gëmee yàlla mooy fexe ba xam na muy wérale gëmam ci lislaam ci gàttal wéral ëggamam ci lislaam nag moom am na jàppandi lool ndax am na juróom benn yoo xam ne soo ko gëmee rek dana ëmb lépp li ñu gëm ci lislaam mooy yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak téere yi wàcce woon ci yonante ak yonante yi ci seen bopp ak bispenc ak ub dogal de daañu tudd yeneen ci wàññi bi sax waaye boo ko dee seet yii moom ëmb na mboolem li nga xam ne moom la ñu war a gëm ci lislaam moo tax mu ne lu njëkk war mu kàllaf mooy mu xam yàlla xam yonante ci kaw melo ya nga xam ne ca la ñuy tegtaloo maanaam yàlla daa am ay melo yoo xam ne dafa sax ci ak wàllam ndax melo yu mat la am melo yoo xam ne melo yu manqué la jomb ci moom am loo xam ne mën naa am ci moom mën naa ñàkk ci moom boo ñëwee ci yonante yi ba tey am nañ ay melo yoo xam ne mënta ñàkk ci ñoom am melo yoo xam ne du leen laal mukk dafa jomb ci ñoom am loo xam ne ba tey ci ñoom mën naa mën naa ñàkk yooyu yëpp nag nee na nga xam ko ca na ko mu kàllaf war a xamee loolu moo njëkk war ci loosu mu kàllaf wa kullu taklifin gépp kàllafe bi chartil xaq li nekk na ci sartub xel maxal bulooxi ànd ak baalix ga bi damin ci deret aw xamlin wala ab ambu aw bi maniyin wala ci am maniyu aw bi imbaati shahar yi wala ci sax kawarug naq aw bi tamaani wala ci fukk ak juróom-ñett ci at zahra yooyu feeñ na lan moo di ak kàllafe ah, lan lañu lan nan lañu xamee ne kii mu la ba la war mag ñi moom mi na xam ne mag la lay war na ko moom itam loolu nag bu dee ci at mu wax ji gën wóor ci fiqhu Malik mooy lee wax fukki at ak juróom-ñett yu góor muy jigéen su ko amee te ànd xelam nga xam doful deful dara kon léegi kàllafe na mandarga ji des nag bokk na ca bu dee jigéen mu gis deret li ñuy wax baaxub jigéen ñu koy wax régal maanaam mbërëg sax mooy tur bu yàgg wi loolu bu ko jigéen gisee na xam ne léegi dal nay doon magum jëmm li war mag ñëpp war na ko yàlla sant na ko lim sant ñépp te tàmbali nañ ko bindul tuyaaba ak bakkaar wala mu ëmb ba tey jigéen bu demee ba ëmb na xam ne kon léegi kàllafe na wala muy góor wala muy jigéen ñoo yemoo ko ci xam ne am nga mën yu ndax mën yu góor dana ko am jigéen dana ko am ku ci am rek na xam ne léegi kàllafe na wala sax kawaru naq sax kawaru naq moom it tegtal la ci ñaar ñëpp muy góor ak jigéen ko ci xam ne sax nga kawaru naq rek na nga daal di xam ne léegi kàllafe nga kon loolu mooy tegtali kàllafe yi nga xam ne ku ci am benn rek daal di war a farlu bu baax a baax te soppi ko te xam ne léegi tàmbali nañ laa bindal tuyaaba tàmbali laa bindal hmm. loolu nag mooy muqaddamatu bi mu waxoon ni moom la bëgg a ubbi ko téereb tawxiid bi foofu la yem bu ko defee mu daal tàmbali nag téereb tawxiid bi ci boppam kitaabu ummil qawaayidi lii mooy téereb ndey kenn ya umul xawaaxit ndey kane mooy laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax baatub laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah dafa ëmb lépp li ñu war a ci lislaam mu ne nag li mooy téerib kon baatub laa ilaha illa allah boobule li lépp li mu ëmb am lañ ci bëgg a tas ci buntu bi tax mu teg ci wama ak la nga xam ne in tawat taxañu na ci alayhi ci kawam minal xaqaayidi ci ay pas-pas maanaam baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah ak lépp li mu ëmb ci xeeti pas-pas ci lislaam moo war a nekk ci bunt bi yajibu dana war bu nee dana war mooy dana sax rek dana sax lillahi ñeel yàlla al wujudu am maanaam am na ñaari fukki melo yoo xam ne melo yu mat la yoo xam ne xel mu nekk xel mu sell mu ne day nangu ne ña day saxal ne ñaar fukki melo yi mënta ñàkk ci yàlla ndax melo yu mat la mënu koo ñàkk bi ci njëkk nag mooy am am na mooy mu doon lu am wér wér nekkul rek luñ wax te amut ñàkk ñu ko ñàkk a gis xam fu mu féete mbaa fu nekk teewul rek ñu jàpp ne am na bu wér am googu wér wér loolu mooy alwujoodu wal xidamu ak bu jiitu jiitu mooy ñàkk dale fenn am yàlla mësta ñàkk mukk waaw doorewul fenn amul fenn amul yenn jamono yoo xam ne daa mës ñàkk bañ naa gannaaw bala am kazaalika ni albaqaaw des des mooy ñàkk yom fenn mooy yàlla amul yemukaay boo xam ni bu ci àggee ñu ne yàlla jeex na amatut wal xinaa doylu ga al mutlaqu ga di guñ boyal xam ma matale na maanaam yàlla doylu ci boppam sëkk aajowul kenn mbaa lenn te lépp aajowa jëm si ci moom képp aajowa jëm si ci moom loolu ba tey mënta ñàkk bokk na ci meloy sax ci yàlla doylu ci boppam sëkk kon way woowu ñeent a ngi ci amul yàlla gi ak ñàkkam dale ak fenn Hmm. aku ñàkk yamam fenn aku doyloom sëkk ko defee muy ñeent waxul fuhu ak wuuteem ak li xalq yi ñeent ay mbindeefam bila misaalin misaal yi mooy yàlla moo sàkk lépp waaye nuroowu ceeg lenn lenn lenn waaw kon yàlla nuroowut ak dara ci mbindeef nuroowut ak dara ci mbindeef yi nuroowut ak ci kenn lenn kooku mooy melaw juróomeel yi wa waxdatu zaati ak yootub jëmm ja wa wasfin ak aw melo wal fihaali ak ay jëf maanaam sum boroom nekk ku wéet ci jëmm wéet ci melo ci jëf ci jëmm mooy jëmmam ji moom rek ko am wéet ci melaw mooy melaw yi moom rek ko mel ci jëf mooy moom dong mooy jëf lépp lu bokkutu yàlla rek jëfi yàlla wéet ci yett yooyu mooy melaw juróom-benneel wi wa qudratul ak kàttan qudratu mooy yàlla man lépp nga xam ni amul lenn lenn lum tële lu mu deful rek da koo narut waaye lépp lay man iraadatun ak nammeel nammeel mooy coobare muy lépp lu muy def ci coobare am la koy defee dara du ko rëcc am dara du tombi rek am moom lu nekk waxtoom ku bëgg am moom ku bëgg rek lay amee kenn du ko forcé mukk xilmun ak xam xilmun mooy mu xam lu ne ca xam nga ma sëkk goo xam ne manqué wul dara dara loo ko wëlbati wëlbati nam ko xamee rek noonu lay doon xayaatun ak dund amee dund nga yàlla ca moom samaxun ak dégg mooy amee dégg nga yàlla ca moom kalaamun ak wax mooy amee wax nga yàlla ca moom basarun ak gis amee gis ba yàlla ca moom di yile waajibaatun way war lañ ci yàlla maanaam way sox ci wàllu yàlla way way wi nga jàng léegi dafa am juróom yaari melo yu ci nekk maanaam kàttanam gi ak coobareem ji ak xam-xamam bi ak dundam gi yàlla ca moom ak dégg nga yàlla ca moom ak wax ga yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom juróom-ñaar la yooyu nag kenn ku nekk day saxal day saxal benn ndax xam nga kenn ku ci nekk aw melo la te mënta ñàkk jëmm jum sax bu jëmm jum sax nag faaw nga wooyee ko loola te doo ko sañ a bañ li ki xam nga xudratun kàttan mooy jëmmi man gi ku nekk ci moom nag faaw mu doon xaadir ajaatan iraadatun coobare nammeel gi ku nekk ci moom faaw mu nekk murid xilmun xam ku nekk ci moom faaw mu nekk xaalim xayaatum dund ku nekk ci moom faaw mu nekk xayyun aji dund xanaa jëmm ji boo dund samun dégg ku ko amee faaw mu nekk samiya kalaamun ak mën a wax ku nekk ci moom faaw mu nekk mutakallim basar ak mën a gis maanaam gis ba ci moom bu nekkee ci moom faaw ñu wooye ko basir kon xam nga juróom-ñaar bu kenn ku ne juree benn waaw muy mu yaar juróom-ñaar kon loolu xam nga fukk ak ñeent la fukk ak ñeent boo ko boolee juróom-benn melo yi nga wax ci yaari way mu dal nekk ñaar fukki melo ñaar fukki melo yooyu nag mooy yi nga xam ne dafa sax ci wàllu yàlla nga xam ne melo yu mat la mënta ñàkk mukk ci moom mu am na ñaar fukki melo yoo xam ne mooy safaan yooyu moom day melo yu manqué day jomb ci wàllu yàlla mooy wa yastaxilu dana jomb déddu haadihi sifaati safaanu yile melo melo yi nga wàññi benn boo ci tudd rek tuddal safaanum ne bii jomb na ci yàlla alxada bu ñàkk xam nga al wujudu nga waxoon yàlla nekk lu am te bañ a nekk rek loo xam ne ñu koy waaye amut kon nag yàlla ñàkk maanaam ñu koy wax rek waaye ci dëgg-dëgg nekkul lu am loolu jomb na alxodoosu ak sosu da nga ne woon yàlla daliwul fenn amul fu mu doore sosu nag mooy am fu mu doore kon loolu jomb na ci moom daali lil xaadisaati ñel na woy sosu yi maanaam ñi sosu ñooy am fu ñuy tàmbalee ñooy am fu ñuy yem waaye yàlla moom sosu tàmbalewul fenn yemul fenn moo tax mu teg ci kasaani ki ni alfanaaw jeex nga da nga ne woon albaqaaw des mooy yàlla du jeex mukk kon yàlla dem ba yàgg mu jeex jomm na ci moom wal iftiqaaru aajowoo xoddaxoo na nga ko limaale yàlla daa doolu ci boppam sëkk aajowul kenn mbaa lenn kon yàlla aajowoo kenn mbaa lenn mooy safaanub loolu kon loolu jomm na ci moom wa an yuma tala ak bu dee fi yemoon tey moom da ne woon yàlla moo sàkk mbindeef yi waaye nuruwu ci kenn mbaa lenn kon nag bu yemoon teeg menn mbindeef jomm na wa nafyul waxdati ak dàq wéet ga da nga ne woon yàlla daal wéet ci jëmm wéet ci melow wéet ci jëf kon yàlla ñàkk wéet ni ki jëmmam ji am ñaareel mbaa melowam am ñaareel mbaa am koy jëf ne moom mbaa lu koy nuru loolu ba tey jomb na xajisun ak lot mooy safaanu xudratun kàttan nga ne woon yàlla lépp la man kon yàlla tëli dara mooy xajisu jomb na ci moom karaaxatun ak sib ngay wax sib rek waaye jëf ci forcé mbaa dara rëcc ko am maanaam daal loo xam neexu aw loolu mooy safaanu iraadatu nameel ba tey kon karaahatu moom jomb na ci yàlla wa jaxlun ak réer réer mooy safaanu xilmun xam kon réer jomb na ci yàlla wa ak dee da nga ne yàlla na ci yàlla maanaam mënta ñàkk ci moom daal kon mamaatun dee jomb na ci moom wa samamun ak tax mooy safaanu samahun dégg wa bakkamun ak luu mooy safaanu kalaamun wax xaman ak ngumba mooy safaanu basarun gis sumaatun ak noppi noppi moom da ko daaneel wayu rek waaye naka jekk duggoon na ci melo yi nga xam ne melo yu mbindeef la te nekkoon yàlla wuute na lépp luy mbindeef kon noppi googu jomm na ci yàlla waaye bokku ci ngay wàññiwaale ci booy wàññi benn benn yi ba tey fii boo ne xajisun lot nekk ci faaw ñu wooyu ko xaajisun aji lot karaaxatun sib ku nekk ci moom faaw ñu wooyu ko kaarihun jaxlun réer ku nekk ci moom faaw ñu wooyu ko jaaxilun mamaatun koo xam dana ko dal wala dal na ko noppi ñu faaw ñu wooyu ko mayitun sama mun tax koo xam ne da koo amee faaw ñu wooye ko ab sàmm bakka moom lu kum nekk ci moom faaw ñu wooye ko ab kam xaman nekk ci moom faaw ñu wooye ko ama kon way wii day ëmb juróom-ñaar juróom-ñaar jur juróom-ñaar ko defee muy fukk ñeent nga boole ko juróom-benn yee weer muy ñaar fukki melo yi nga xam ne moo jomb ci yàlla safaanoog ñaar fukki yaa ngi njëkk na wax yee juusu dana dagan fii xaq yi ci àq yàlla ji fi àllul mumkinaati def mbindeef ya bi asriha ci mboolu seen wa tarkuha ak seenu bàyyi fil xadamaati ci ñàkk ya gannaaw bi nga waxee li mënta ñàkk ci wàllu yàlla ndax da di ak mat teg ci lu jomb ci moom ndax day ak manki da nga ciy teg lenn loo xam ne mën na am ci wàlla mën na cee ñàkk loolu nag mooy lépp loo xam ne lu mën a am la ndax buñ dee mbindeef jubluwuñ ci rek li am ba noppi dañ ci limaal li nga xam ne mën na am sax te amut xam ne coobare yàllaa ko te am yooyu yëpp dugg na ci mbindeef kon lépp loo xam lu mën a am rek dañ koy bàyyi ci coobare yàlla bu fekkee coobare ma kàttanam aju na ci amal ga mu amal ko bu fekkee coobare coobare ma kàttanam aju na ci bañ koo amal mu bañ koo amal waaye kenn du wax ne lii daa war yàlla faaw mu def ko wala lii yàlla suñu ko def mbaa nangam dañuy bàyyi lépp ci coobareem loolu nag mooy li nga xam ne mooy jaayis maanaam mooy aji dagan ci wàllu yàlla ujooduhu amul yàlla gi laxoo ñeel na ko dalilun tegtal xaatixun buy aju dokk nee na am gi yàlla am moom amuñ tegtal bu wóor a wóor te loolu mooy xaajatu kulli muxdasin aajowoog lépp lu ñu sos lisaani ci jëm ci aji sos maanaam lu ñu xamal ne am ñàkkut koo xam ne moo sàkk lépp te kenn sàkku ko mooy mbindeef yi moom dañoo sosu maanaam lépp lu bokk te jëmm jooju rek ki li nga xam nii ci diggante asamaan ak suuf ak asamaan ak suuf sax tegtal yi wane daa sosu moom kenn nattabliwu ko maanaam ñëpp xam ne ni am na fu mu dooree ni mu ni mu nosoo ak ni mu xereñe mënta nekk lu jekki-jekki sosu boppam ku amut nooy sose sa bopp te it ni mu nosoo wane ne ne hmm, ku xam ku xereñ xereñ moo ko awalee noonu waaye jékki-jékki lu tombe rek daal di demee nii mu demee waaw su ko defee nag ka amal loolu nag kooku mooy yàlla ngirmu dana dana njëkk layal na la mbindeef yi dañoo sosu te it sosuñu seen bopp ndax ndegam da nga ne li lay xamal ne yàlla am na mooy mbindeef yi am te mu moo leen sàkk boo amutoon kon mbindeef yi doom nga ne ko waaw ah mbindeef yi lay xam ne mbindeef daa sosu ak ndax susul boppam moom la day njëkk a layal ne susul boppam njëkk day mujj a layal ne mbindeef daa sosu waaye li mu njëkk a layal mooy mbindeef des koo sos waaye sosul boppam sosul boppam mooy law xadasat doonte sosoon doonte sosu woon na al akwaanu mbindeef yi bi nafsiha ak seen jëmmi bopp am ñu koy def laam li nafsiha la lajtamaha kon tase at tasaawi yemoo ga war rujxaanu ak lëng ga lëng mooy wat ci ñaari booli balaas boo tegee ci benn bi dara mu wat moroom ma loolu ak lëng lay firi ak wat wa daate lii mu xaalul lu ñu la nee na boole woon mundee fii jot am dañoo sàkk seen bopp day mel ne kon nee nga yaar yemoo woon nañu képp benn ëpp ci sa moroom doole gannaaw ba kenn ko jekki-jekki ëpp moroom ma doole te leneen wàllu si ko ca maanaam xam nga tey ñaari dërëm yoo xam ne ñoo yemoo képp ci ngaraam ci boo ko dee Hmm? gannaaw ba kenn ku mënta jekki jékki ëpp moroom ma te du jeneen doole ñoom moo ñëw si ci yaar yi amoon képp nag mooy amul mbindeef ak ñàkku mbindeef maanaam ngay jàpp ni amul mbindeef ak ñàkk mbindeef ñoo yemoo képp gannaaw ba nag bu mbindeef jekkee jekki amal boppam day mel ne kon amal ga jekki-jekki ne ëpp doole ñàkk nga am te amul benn sabab bu ca wàll si ba loolu tax moo am mel ne ñaar dërëm ñoo yemoo képp rek gannaaw bu benn tëram buy fexee fexe ba wat moroom ma te leneen wàllu si wu ca bu ëppal ko doole loolu mënta nekk kon amul mbindeef ñàkk mbindeef ñoo yemu dong daañu ko layal ci kanam kon li xel nangu mooy gannaaw ba geneen kàttan muy kàttanu yàlla moo ñëw amal lee ñàkkal waaye nag bu ñu nee moo wëlbatiku mbindeef yi am ñoo wëlbatiku sos seen bopp day mel ne am nga ëpp na doole ñàkk ga ci lu dul benn sabab di ca wàll si waaye boo nee yàllaa ñëw ak dooleem rek nag amal lay ñàkkal lay moom mu daal doon layu gàtt gàtt moo tax mën naa yaaru yem woon képp gannaaw ba kenn ka wat moroom ma ci lu amul benn sabab mënta nekk moo tax mu daanee ko wazaate lii mu xaalun lu ñu jombal la day bëgg a door layal nag ni ñu lu bokk yàlla daal sosu bu njëkk na layal lool door wax ne sosuñu seen bopp nag lay gën a noppale ci kiy jàng mooy danee waxu doo sulu xaalami sosuk mbindeef min xadasil ahradi mi ngi tukkee ci sosuk xarad yi maxtalaazumin ànd ak taqoo xarad mooy loo xam ne aw mel loo mënta beru maanaam faaw lay fekk mu taq ca mu waaye mënta beru moom dong xarad nag lu bare bari la mel ni xiif ak mar wala tawat ak wér wala sonn ak noppalu ak naqar ak mbégte yëngu toog dal rafet ak ñaaw gudd ak gàtt moom daal yàlla rek xam ni mu bare yooyu yëpp boo ko dee seet amu ci lenn lu mën a beru te nekkul ci jëmm day fekk jëmm rek mu taq ca xam nga yooyu moom seenu sosu kenn wérante wu ko maanaam am yëngatu foo ko fekk dana la wóor ne am na fu dale waaw dana la wóor ne am na fu mu dale xiif boo gis am na fu mu dale rek boo gis am na fu mu dale yu mel noonu nag gis gis gi gis yooyu muy xarab boo xam ne am na fu mu dale te gis mbindeef foo ko fekk day taxoo yooyu maanaam mbindeef moo gis rek yooyu da koy gaar moo tax ñu xam ne kuy taxoo lu sosu dangaa sosu yow tam rek fekkoon ne mbindeef du woon lu sosu kon du taxoo xarab yi sosu yooyu le loolu mooy layal ne mbindeef lu bokk te yàlla daa sosu ba noppi itam nee nga léegi sosul boppam moom nga njëkk a layal kon li xel nangu rek mooy am na kenn koo xam ne moo sàkk lépp te kenn kenn sàkku ko kooku nag moom bu ñu xasee xam ne am na rek ñenn ñu nekk ñooy seet nañ koy tuddee bu dee ci wolof yi ñu tuddee ko yàlla ba demee ci arab yi tuddee ko allah boo demee ci beneen langue ñu tuddee ko nañu miin boo demee beneen langue tuddee ko nañu miin waaye jàppal ni daal ki nga xam ne moo am lépp te kenn amalu ko waaye kooku rek moom moo yàlla hmm. loolu la yokk doonte nekkutoon alxidamu jiitu di aw meloom kon war xuddoo sufoo sosoom nga maanaam na ngaa waxoon ni yàlla dalewul fenn mu ne nag boo ne dale na fenn da nga daal di wax ne kon daa sosu mel ni mun te su boobaa dawrun li wax dawru tasal sunun akuk càllalawu xotima war a leef na ko waaw nee na bu fekkee danga ne yàlla am na fu mu dale li ñuy wax dawru dana am dawru mooy jëmm ji am na kum sos waaye moom it am na ku ko sos boo ne yàlla moo sos mbindeef yi waaye moom am na ku ko sos ndax ndegam nga daal sos rek ñàkkul koo amal waaw su boobaa kon dawru mooy li nga wax ne yàlla moo amal mbindeef yi waaye moom it am na ku ko amal kon jenn jëmm ji nekk am na kum defar am na ku ko defar loolu muy dawru te sul-sul nag mooy loolu def càllal jooyu rek ñàkk am yemukaay ndax xam nga boo xasee wax ne yàlla mënu amal de am na ku ko amal fa wër laa taxaw war ngaa jàll ne kookee ko amal am na ku ko amal ba tey bul taxaw foofu war ngaa jàll ne kookee am na ku ko amal ba tey bul taxaw foofu war ngaa jàll ne kookee am na ku ko amal loolu nag xam nga moom la xel nanguwut luy luy nas luy wéy di rek noonu na càllal am lu fu mu yam loolu moom la xel nanguwut li xel nangu daal mooy li ñuy wax lay nga jàpp ne am na kenn koo xam ne moo amal lépp lépp lépp lépp te moom nag kenn kenn amalu ko waaw loolu wut dara dara ci lim ci ak melo yi wax yëpp loolu daal moom moom la xel gaaw a nangoo law am kana doon te jàpp ndi woon alfanaaw jeex ga lan tafaa kon dàqu alxidamu jiitu ga da nga ne woon yàlla du yem fenn mu ne nag bu fekkee da nga ne woon day dem ba yàgg mu jeex xamal ne kon li nga waxoon léegi ne dalewul fenn rek moo deñ ndax xamal ne kon daa dale fenn te gis nga dale gi fenn layal nga ko xaat léegi bay door noppi boo xam ne moom mën unis ta wax lu muy dalewul fenn te boo nee day yem fenn nag kon mooy dalewoon na fenn law maasala doon te yemante woon nag alxalqa mi def xubu suufoo kon sa soom nga in xatama war na maanaam bu fekkoon ne da ne yàlla <coughs> daa yem ak mbindeef xam nga da nga ne woon bokk na ci melo yàlla moo sàkk lépp waaye nuróowu ceeg lenn yemowu ceeg lenn kon nag boo ne yàlla daa yemante mbindeef mbindeef moom daa sosu su boobaa dangay wax ne kon daa sosu te fekk na ñàkk sosu yàlla maanaam ak ñàkk dalem fenn moom nga njëkk layal léegi ci law lam yekkul xidamu wasfuhu lazim xudoo suhu jëlee law lam yajib doon te warutoon wasful xinaam melaw doylu yàlla iftaqara kon mu aajoo xam nga da nga ne woon yàlla aajowul jëm ci kenn mbaa leen bu fekkee da nga ne woon nag yàlla day aajo woon na jëm ci kenn mbaa leen kon day mel ne kon mbindeef la rek day mel ne kon dafa sosu mel ni ñun ñi nga xam ne aajo woon na nu faaw jëm ci kanu sos te mooy yàlla mën noo doylu mukk ci genn wet loolu lam yëkkun doon te nekkutoon bi waaxidin di kenn la ma xadara kon du attan maanaam yàlla bu nekkutoon benn yàlla wet gi nga waxoon mënta ñàkk bu fekkoon dafa doon ñaar mbaa ñett loolu kon la waxoon ne moo man lépp moo sañ lépp day dañ ndax xam nga tey boo nattale woon ne ñaari yàlla am na li suñu borom wax ne law kaana fiihima alihatun illallahu la fasadata mooy boo nattale woon ne ñaari buur am na buur bu ne kenn ki ne lii de tey fa tey ma yëngal ko kenn mënu ci dara kenn ko déedéet lii du yëngutu xam nga kon ñaari sawaan mënuñoo bokk tase lii moom day yëngutu mbaa mu ñàkk yëngu rek mbaa boog nga misaale ko bu bu kii nee lii faaw mu am kenn ko lii faaw doo xam nga loolu ñaari safaan mënuñoo bokk tase ñoom ñaar xam nga ne moom seen ñaari bëgg-bëgg yëpp di bokk tase ko ci xam ne sa bëgg-bëgg am na rek kookaay yàlla te nga xam ne bëgg-bëggam amul rek nga xam ne kooka moo yàlla ah ak ni ko suñ borom waxee rek bu fekkoon ne ñaari yàlla am na ba ñett lépp yàqu ndax gis nga ne benn dëkk donc bu amoon tey ñaari président rek wala benn département rek am ñaari wala benn région rek am ñaari gouverneur lépp daal yàqu lu mel noonu rek moo tax suñu borom di lay woowu lay wan ne wéetam gi moom amul werante amul na tawle law lam yakun doonte nekkutoon xayyan di aji dund muridan tey aji nam aaliman tey aji xam wa qaadiran tey aji attan lamaara ay kon doo gis aalaman mindeef xam nga da saxaloon ci melo yi ne am na ak dund ga yàlla ca moom am na coobareem joo xam ne ci lay jëfe kenn du ko forcé dara du ko rëcc am nga ne woon am na xam gu mat sëkk gu manquéwul dara mu ne yooyu melo bu ko melowutoon kon mindeef yi am duñu am ndax lii am moom ku dund te amee sañ-sañ te amee xam amul man rek yaa mën a sàkk lii kon bu loolu amutoon kon bi def du am wattaali aji topp ja fi sittil qadaaya ci juróom